beneen maman kii nga xam ni ki Kiné Beye la tudd ñu buggoon waxtaan ak moom mu wax ñu tuuti si soxna jaara mii nga xam ni seen doom la seen rakk la. Mm-hmm. waaw. waaw salaamaaleykum yéen ñëpp maa ngi leen maa ngi leen di nuyu soxna Diarra suñu Diarra la ñun ñëpp dañ ko gàttalee Diarra dañ koo ma dëgg ndax ko jur ma koy yóbbu man ñii di wax ak di ko ñàkk ji kon naa koo jur du dëgg. jaaral la ma gisoo ci moom ba muy liir ba léegi moom laa gis si moom changé muy baax na bëri na kersa respecté nañu bokkal lu wax ak yow day ñëw ba ci sa nopp bi sëgg te mënoon na ne caat laa taluma kenn ñëpp mën loon tal lu dëgg damay réew mm-hmm. ndax en général mm-hmm. caat day réew lu dëgg waaye fekk ko si macha allah danoo am wërsëg si moom te bu rewoon it dañ koy fekk si ndax moom lañ am moom lañ bëgg ki la yóbbu ngay ñàkk ji mhm. kooku sa yaay la dëgg la lu leer mu nekk lu ndaw am ñetti ak sama yaay yëkkati ko jox kii kii maa ko mag ñu nem ñoo ko ko day bàyyi lu dëgg mhm. mu ànd ak moom ànd bu rafet ndax ñun dañu ne doom chaîne la mhm. benn boutique la li ngay gis ci jaaram yi moom ngay gis ci man moom ngay gis ci kee lu dëgg ñuy ñaan yàlla musal ko ci cat ak làmmeñ mhm. bët bu aay pexem mhm. noonu mhm. yàlla boole kook ay nitam ay tiktokam yàlla boole kook ñoom du ma lim sax tur ndax bu ma limee dinaa juum ndax tiktok bi daanaka man sori naa Italie laa nekk fa laa dëkk du fii dama fay ñëw vacances rek waaye am na ñoo xam ne xam naa leen si jaar ndax xam nga tiktok dëgg la day yàq mais day boole day boole te lu ne da juddu Mm-hmm. mosuma koo gis waaye dégg naa ci moom waxtu rafet yoo xam ne nii mm-hmm. li ma si dégg daf maa doy ba jaraluma seq tànk morom ba seeti ko ndax wóolu naa dëgg la mm-hmm. Omar fa dëkk fa la sama jëkkër dëkk ñu koy nuyu au passage maa ngi koy nuyu au passage na la yàlla fay li ngay def si jaar ñu ngi koy dégg ñu koy dégg ñu ngi koy gis taxaw nga ko doy loo nañ la doy loo nañ la taxaw nga ko comme koo bokkal nekk bàyyi nu mu lay taxawoo musuma wax nit wóolu naa ko mooy mm. Omar Sarr dama ko wóolu ba moo tax seetuma ko mm-hmm. Omar yàlla na yàlla guddal sa fan ñu ngi lay ñaanal mm-hmm. yàlla na la yàlla booleeg sa njaboot yàlla musal la ci làmmeñ li nga bëgg yaa xam ci Italie yàlla yàlla defal Omar Sarr jërëjëf kontaan nañ trop si yàlla boole la ak sa jigéen bi yéen a jaar ba ngay ba mu am si yow ñu koy waxee turandoo lu mm-hmm. dëgg ak ñeneen ak ñeneen yéen ñëpp yàlla na yàlla booleeg maam jaara maam jaara daal moom ñun ñoo bokk ak moom de waaye si buñ ko ne ndax buñ ko si woon doo fi taxaw di wax dëgg neexu buñ ko siboon wala ñu mere ko boo ñëwee ne tele ma ne man di duma yàqal sama kudd may sànni sama yoon si waaw ma nekk si jaar la nekkeen yaru ko dëgg neexul waaye li ma bàyyi damaa sànni sama kudd gi daw mhm. jaar ku ñu oo ci moom ñun ñuy bokkal ndey bàyyi duñ ci doy pour wax si mhm. Mhm. ku ñu oo ci moom duñ pour wax ci ndax daf ñu koo wan daf ñu koo wan dafa yaru lu jafe c'est important xale bu weesoo 18 ans l'âge de la puberté. à bu mm-hmm. dëgg. lu ko neex lay def. di ko wax. Mm-hmm. te mënoon na ne man Amérique laa nekk am naa sama passeport am naa sama li sama li sama li dama koy wane. waaw jaara xamul lu ko yàlla may. jaara bëgg koo xam. jaara mm-hmm. lu mu gëm di tagg ay yónneen di def ay bagaasam. jaara bokkut ak ñun. mukk mm-hmm. si àdduna jaara yal na la yàlla fay yal na la yàlla may borom kër yal na la yàlla may njaboot mm-hmm. li nga soxla nag yaa ko xam si tiktok yal la ko yàlla may te yàlla daxal la seytaane ak commentaire bu aay laa toog wasalaam dama cee nekk ci suuf rek di xuloo ci tiktok commentaire bu aay amul solo amul solo yal na la yàlla ngeen lu mu capable. tey jii waaw Sénégal Sénégalais moo sabab Sénégalais moo tëddee noonu. mais boo ko xamee noonu xam yow ki ki nga nekkal kan la rek yooyu noonu du la déranger. Mm-hmm. loolu la Sénégalais moom loolu la ko yàlla bindee. Mm-hmm. rafet na. Mm-hmm. rafet na ndax tey jii nii. nit su ko waa mbedd bi di wax baaxam te waa këram waxuñu ko kon kooku sa sa waa kër ñoo taxaw sa baax wax yow yaay kan kon mm-hmm. tey jii nii sénégalais yi war nañ gën a jàpp mm-hmm. gën la jox cër gën la respecté xam ni yow li nga koy def da nga koy da nga koy da nga koy def ndax amour mm-hmm. defoo ko ndax dara da nga koy def ndax merci da nga koy def ndax amour kon yàlla na si yàlla sàmm jàppale la di boole la sa famille waaw defal la mu kawe sa njort musal la si cat ak seytaane ci barke seen naam xam ak commentaire bu aay ak commentaire bu aay <laughs>